lépp gis moom xam nga. loolu mhm. moom jarul ñu ci détaillé sax. Mhm. peut-être jëli moo ko jaaxal ak xam defaat dara bett la quoi bu la bett da lay yéem man la. yow ban instant nga yëg loolu action boobu da ko war a def si ban instant si combat bi. non loolu moom amul benn instant bu a xam nga kale xamante ne day du du day ñëw rek. day ñëw naturellement quoi. na mhm. nekkul looy jàng wala nekkul looy programme si biir bëre. Ah. am na kale yoo xam ne ngay programme am na kale yoo xam ne doo ko programme. waaw moo ko def programme am. entraîné woo ko école ba. non entraîné wu ma ko def ma ko dara ah. ma ko. Ah. ak boo boo si doon revenir euh, moo def premier pas def ah. ma dox si kawam. waaw def benn pas mu rëggee. Mhm. moom moo ma dóor gauche nag. gauche bu dal dal na. waaw dal na waaw. ma encaissé ko dóor ko droite ma déwén. Mhm. mu daw laxasu mu daw laxasu waaw ma épurgul ko. bu bu bu laxasoo bi amul foofu lu fa xew lu fa xew parce que léegi dafa jaaxal sénégalais. bu laxasoo bi amul. bi bi mu amee loolu lu fa xew. bi mu amee dama ko doon épurgul moom muy daw xeex bi. Ah, ma ko ma rek dafa ñëw laxasu ma génn épurgul benn épurgul. mais ma jógee tellement ko man mu ko xeex. si laa ko xaw lal plaque mais plaque bi gëmuma ko. gëmuma woon plaque bi. non su ma ko su ma dafa may daan jël bu hmm. si la ma dóor tànkam tamit. après. après si def mesure teg sama coup bi. bras moom moo jeexal combat bi. moo jeexal laa ma ji moom moo tax daanu moo tax moo tax si ah. kawam. mais mais bi bi allez-y Lamine. Euh, Forza laay la loolu loolu gaawaay la wala bëri la parce que lu mel noonu dafa mel mooy feeñ rek presque ci combat rek euh, combat Sa Thiès ak Nékoré la gaawaay mooy maye loolu wala bëri la. souplesse dina ko maye. Mm-hmm. aussi sa yaram man di ci bëree dina ko maye. parce man dama doon déglu maa ngi bëgg a déglu ma mu expliquer lan moo tax mu def mm-hmm. mais man pour man mënoon expliquer moom. Mm-hmm. lan moo tax mu def ko. parce que mbir dafa ñëw ci biir action. parce que moom bi muy def placage bi. la da nga koy dóor tànk. mais moom mu dem. mais moom bi muy dem si souplesse am ak réflexe am moom bàyyiwul yaramam parce que boo gisee a ne bàyyiwul yaramam parce que ba léegi mu ngi seet fu mu jafandiku jafandiku boobu moo ko mu teg appui lii ba mu tudd sax. kudd kudd bi moom ba léegi yaramam laalul suuf. Mm-hmm. bi mu tegee kudd bi ba pare mu def na ay boo xoolee tànk bi tànk gauche bi daf ko daf ko leb moo tegaat appui fële moom tamit yaramam amul fenn fu laal suuf du ngembaam du dara mu laal suuf tànk loxoom bi moo tegu ak tànk góosam bi si ginnaaw. moom la teg tourné waat àndaat ba pare tegu ci kaw waaj saa yu loolu souplesse moo koy def. yaram mu yaram mu neex yaram mu màndi ci bëre tamit dina ko def. Hmm. Jackson nangu si li wax lu mu analyser. waaw waaw noonu mooy noonu la demee. Uh-huh. Hmm. Uh-huh, noonu la demee. je pense combat bi mooy waaj a commencé noonu jamteeri ni waaj a bëri sa sox keroog seetaan nga ko depuis Maroc. seetaan naa waaw. ban jàngat nga si def wala ñu bàyyi combat bi daw. Ah, allez na combat baa xam nga bëri bëri bu nekkee si yow. waaw am na ñoo xam ne mbër yoo xamante ne fekk tëdduñu. ñoom mm-hmm. pour ñoom daanu ko ñu. dëgg la. Mm-hmm. te samp yëpp da parce que def na ko action bi mais moom yaakaar naa a daan si action bi. dëgg li rek. rapidité. rapidité ak ak bëri ni sa mm-hmm. koy def da koy def. Eh, Jackson euh, analyser ni combat ngi nii en direct. waaw dama suble ma dox benn paa mu taxaw léegi ma téye loxo sama loxo gauche bi moo téye loxo droite am bi. waxal bu baax. sama loxo gauche moo teg loxo droite bi quoi. Ah. déplacé mais soq ko liggéey nag. waaw liggéey na ci ah. liggéey na trop. gis nga moom ma dóor gauche ma dóor ko droite. Mhm. sol ko waaw mu sol ma. bu baax léegi ma doon génn sama loxo droite pour hypergir la gisoo. mu ñëw la mu ñëw ma waaw. waaw mais mais Jackson ba léegi lii nettali woo ko la demee nii Jackson. <laughs> Ah? Ah, noonu la demee ah, que moom de moom bi mu tegee loxo bi moom tànkee ba léegi tàllal ko moom moom mu leb tànkee. Hmm. moo tax ngembal laal suuf mais su bàyyi woon yaram mu bàyyi ko woon. Hmm. ngembal na rek mu laal suuf. réalisateur bi dina si ñëwaat. ba léegi yow mënoo expliquer lii de. non mooy lu ma war a am lay fekk si biir bëre waa si biir bëre bi la si lay ñëwee. Ah. mais du nekk lu ñuy programme nekkul rek mooy a boo mënee bëre na wala wóorul lii tante ko. non moom moo tante. Mhm. man contre kale la dama ko tante plaqué mu mu kii ma. mu ngi noonu. waaw dama ko la tànk. dóor la tànk bu ma dóor tànk daa am lu mu bàyyi moo tax tànk bi jàllul. lan la bàyyi. boo dafa doon téye sama loos bi nii bu baax. téye xaaral réalisateur bi delloo ko téye téye foofu action bi. dootul ah. tànk bi mu def nii def naa ko mm. mais man bokkuñu ko analyser. xam nga ah. ah. xam nga soo léegi gisoon si biir loxo bi daal bi daal mhm. bi tëj ñu ko bi Jackson dawee plaque da ko tëll par éliminer loos bi mhm, foofu lu mu gaaw gaaw Jackson lu mu gaaw gaaw gaaw bopp bi mu njëkk laal bi mhm. maanaam gaaw kii nañu moom kii moom gëmewu ko parce que moom jàpp na Jackson daanu la moo tax mu bàyyi ko te fekk moom ke ke moom it ma ngay liggéey ci xelam moom it nga def leneen ah. yow am na si combat bi ci biir combat ban instant nga ñeme soq si bu muy mystique bu bari wala wala avant combat bi nga ko ñemee ban instant nga ñemee soq si combat bi. non soq moom wax dëgg yàlla mosuma ko ragal quoi jàppoon naa sax combat bi man nu mu demee dafa ma bett mais jàppoon naa gën a bëri lu gën a neex lii quoi. Ah. waaw man lu ma ko a ñemee. da ko mos a ñemee. waaw lu tax nga ñemee soq. dara dama jàpp ne maa man rek dama jàppoon si qualité bëree man maa ko dàq bëri dama jàppoon yaa ko dàq bëre. maa ko dàq loolu laa jàppoon moo tax ma ñeme ko

wax dëgg yàlla gisuma woon ci qualité boo xam ne dinaa ko bàyyi xel leen daal laa xamoon dama jël avance naa kii bu ma ëpp doole mais toujours maa maa koy ëpp doole. xam naa façon mais bi ngeen dalante doole feeñ fa. wax dëgg yàlla sentir ma loolu noonu quoi mais xam naa su ma xoolee yaramam xam naa kii tey combat bi liggéey na. waaw ah, liggéey na si biir géew bi. Uh-huh. dinaa xam ne kii am na différent ak ak yeneen combat xam naa ne liggéey na. Ah, liggéey na hmm. ah, d'accord mais souplesse bi nga souplesse bi nga am mbaa du li nga bokk ak Sa Thiès coach Hmm. souplesse boobu vitesse boobu est-ce que du loolu. waaw di nuyu suma coach yi papi. waaw bu baax. man damay voyage moom laa dagaloon bee ñu ànd voyage yi. Hmm. moom weer deux mois quinze jours foofu après ñëwaat continuer hmm. nekkul si ay bokk ak kii coach wala si coach am na coach mën na aay sax mais mbër bi mooy nangu rek. mooy nangu si mbër bi lay dépendre mbër bu nangoo joxe yaramam. rëyul deful dara. kon lu ne mën na si am si mën na am dawaa. mais papi xam nga coach bu aay la bu baax la tamit xam nga ku am maanaam bu lay li jëndul lu ma war teg la lay teg. Mhm. waaw boo mënul mu mu dàq la. mais li nga def ni xanaa yaa dàq bëre si làmb ji. non làmb ji dàq ma si bëre jàmbaar yaa ngi. ah dàq bëre si làmb ji xanaa ñu bëre. lekk ñu si làmb. lekk ñu si làmb. lekk ñu si làmb doon ñu raser leen làmb ñu waaw ñun ñun dàq bëre ñoo ngi si ikiri yi di may contact mënuñu bëre. dafa am da nga xamante ne moom jëm ceer yoo xam ne rek xam nga kenn du ko nekk champion. waaw def ay preuve am làmb léegi nekkatul ay promesse ak yoo noonu ay daan naa ci daan nekkatul loo noonu dafa am loo base bi maanaam ñun ñi dañ siy xaw a am benn handicap ñu jóge dëkk ba. Mhm. ñu juddoowul Dakar yaroo ñu fi. Mhm. loolu day xaw nekk handicap si ñun. dëgg la maanaam fi nga juddoo yaroo fa bokkul ak koo xam ne da nga ñëw wàlla yaan si. Mhm. comprendre nga kon ñun ñoo gën a nekk jàmbaar parce que la ma tax ñoo gën a nekk jàmbaar dañoo wàlla ñëw jaand jaand jaand ba lamb xam ñu. jaand jaand ba ñu fekk si ñoom ñoo fa dëkk juddoo fa yaroo ñu ëpp leen fa suba teel. kon loolu yombul. yombul mais base dafa baax. ñu loolu mooy suñu handicap. te jën géer bu nekkoon Dakar dëkk géej waaw mu dëkk feneen mhm. dëkk Fass fu aar dëkk wala keneen keneen dëkk wala mu dëkk jàmm gën kenn waxtu ko bu mu def da mhm. a gis mbër bu def trois combats quatre combats bu jógee ñaati topp mhm. te mu leer na kii mën na ko boot di bëree c'est vrai mais loolu base bi moom nga koy maye juddoo fenn yaroo moom boo ko fekkoon jëm jëlee boo ko fekkoon fële ah, mu dëgg Kayar da lay xool boo wootee fi nga wootee du la xool parce que foofu koy base foofu la juddoo loolu dafa si dafa am mais gars yi ñu leen dàq bëri ñoo ngi fi ñoo xam ne bëriwuñu ñoo ngi si écrit may contact. dëgg la mais yow tolloo nen. Mm. Euh, jommal Sénégal loolu lan la Lamine man loolu jaa yéem na ma de. Mm. yow tolloo ni force ah? <laughs> tolloo ni jamteeri. <laughs> mais loolu dara affaire affaire moom xam nga lan nga am lu gars yi amul. mooy li nga rek entraînement daal ak yar. am mm. na may dara du la ko may. da ngay entraîné am taalibe ñu respecté ñëpp xam fonk say waajur. wax ji moom lu la wax may ëllëg di la loo wax may. ëllëg wax dina mais mais gars yi bëgg nañ tamit wax bi ah fuural bi xam nga déconnage bi affaire yooyu. ah waaw mais sa calme bi moom tamit. xam nga promoteur bëgg ko ah quand wax nag. xam nga mel ni Balla Gaye boo boo waxee signature boo ñëwee làmb jëfe mais nit ki boo waxee signature ñëw làmb bu ne wax dara loolu la xeeb bu la daan lay jëf mais même boo waxul bu làmb jëlee nga def ful ak faayda Mm-hmm. défaite ak victoire yàlla moo ko yor. mais boo ñëwee wane njàmbaar si wane góor yàlla. Mm-hmm. comprendre nga kenn du la xas après quoi. dëgg la ama Forza bu muy bëreeg euh, Coins bu muy euh, dafa nekk dëgg nekk xale. mais dafa ñëw moom moo dëggal boppam dox si kawam bëre. Mm-hmm. kan koy jéppi. ne da nga nekk xale di léewtoo ba sa ku la mag fekk la fa ravancé la. dina lay jéppi. kon kon soq naroo fa woon yàgg ay léewtoo yàgg. man ak soq ak ku mën doon avance foo mën a jël moom du fa yàgg moom. man mooy chaque jour rek gaaw a jooy wala gaaw a reetaan. Mhm. ndax yoroon ma gaaw a jooy wala gaaw a reetaan man moom laa gëm. gaaw a jooy. wala gaaw a reetaan. loolu mooy slogan. waaw kontaan léegi wala mer léegi. la ilaha illallah. Ah? muy muy dëgg. mooy dëgg ah. te yow loolu ngay mooy dëgg. Ah, yow daal gars yi dañu war a kon naan. am na dem bi muy yàgg. nga ne ko. heure bii nii samay euh, lafañ ak yëpp laa doxee ci comme di bëri di nga xeex moom. <laughs> te benn moom. <laughs> salaam ah, moo indi moo fi indi gladiateur. waaw mais comme gladiateur nga wax. waaw fi yàgg. mais man ñaari béykat sax bu ma ko tuusee woon bu ma ñëwee ba bii nii damay dox. waaw. nan dee mbirum góor bu dee bu dee boo deewee xandoor bu xandoor. Uh-huh. bu bu maanaam bu demee ci waar waaw bu demee ci waaram. wàcc na wàcc na. waaw loolu mooy li wér. boo entraîné ay weer lekk façon lekk bu nekk sa booy jëlee ko indi la waaw soo ñëwee ci géew bi defal li nga war a def yàlla moo yor ndam moo yor defet. moo yor defet mais yow yow taqe nga de. non man maa ngi jàng ba léegi maa ngi jàng bu bëri bëgg naa man bëre moom. Ah. kan moo la jàngal bëri Balla si Balla Gaye ngay imité wala si ñan nga ñan nga rootee. non Balla Gaye moom jàngalu ma bëre. ah Balla jàngalu ngeen contact yaa ak Balla Gaye. mës ñu contact Balla Gaye est-ce que mës ñu gisante moom deux ma trois fois nga dëkk Géejawaay trois fois. amuloo relation. man xam nga buntu gaale Balla Gaye ko féere sax Balla Gaye mosuma nangu gaale. amu leen ay relation yu. non amuñu relation yu relation yu non non Balla Gaye amaana mais suma grand la. su ma ngeen bokk Géejawaay daal bokk Géejawaay waaw. te gis dama jox cër wax dëgg yàlla. Hmm. combat bi wóor na la si. ma respecté la waaw dégg nañ si waaw man sox combat bi dégg nañ si. Hmm, combat si. waaw combat moom Tapha Tine mu ko jël tamit dégg nañu si. kan moo la jàngal bëri Lac 2 wala. non man nit jàngalu ma bëri kenn jàngalu ma xam nga uh-huh. ku ñu jàngal bëri mooy mbir am benn kale wala ñaari uh-huh. comme sànq lu Forza wax rek gisu boobu mënee bëri kenn du la wax bëreel nii. Uh-huh. danaa naan bëreel sa xel rek. kon si benn benn temps lañu am si yow rek. mais am na ku la jàngal bëri si. non nit jàngal ma bëri jàng bëri. kenn jàngal kóoroon topp quoi xam naa loolu la bëgg a wax ko kóoroon topp. non waaw kóoroon xanaa nekk fi moom mu ngi waalo Ah. waaw maa ngi koy nuyoo par exemple laay borsa. Ah. école laay na. laay borsa laay borsa. moo nekk école bi ba waaw. Uh-huh. di bëgg suma benn grand tamit Vandam. Uh-huh. ay ay Vandam ay Wade. si ñooñ daal waa jaay siru ñooñ daal ñoo ma tàggat. Hmm. mais du Dakar quoi. du Dakar. waaw ay ngañ dajji ay ay Vandam xam ñooñ daal. Hmm. ay laay borsa mais sa taille bi du la gêner face à des lutteurs comme Forza parce que di ngay génn si cours bi dem du tolli ba bëri yoo xam ne ku mel ni Forza. ah loolu taille bi du la gêner. Euh, roi de zèle toll. comme yow. <laughs> comme moom waaw. comme yow la toll te am na ñu ko jiñ de. ah Modou Lo numéro 2. waaw am na ñu ko jiñ de. Uh-huh. am sa waay muy bëri Amadam sa bokk si foofu. sa waay muy bëri Amadam. Amadam bokk si foofu da nga jàpp dàq dàq ji ko ay dàq yu métti xaw na ko rey si laamu ñi. xaw na ko rey. <laughs> waaw loolu dara du ay taay affaire affaire yi xam la. Mhm. fit mooy première. fit fit mooy lépp fit mooy doole mooy kattan mooy lépp. Mhm. loo entraîné entraîné te amoo fit. waaw. arbitre bi ne diw ak diw préparé nga def si géew bi. foofu ñëpp xamee jàmbaar yi. Mhm. te yow jàmbaar nga. ah yaakaar naa loolu de. ah ñu ngi la koy jiiñ. <laughs> waaw man moom wax dëgg yàlla lu may wax toujours rek. saa bu ma ñëwee dama def fulla def faayda lu ma yàlla may ma jël. man moom ma defar moom ma victoire moom ma machine mais lu ma man du ma ko ñaan yàlla. te Serigne Thiar da naan yàlla boo ko ñaan da nga def yitte. Mm-hmm. man ci loolu laay jàngee sa jour. Mm-hmm. des ma toog sax affaire yi mais su ma xalaatee wax sëñ Cheikh rek dama génnaale sama bopp yàlla kenn du ko ñaan taxaw naan nii yàlla may ma may may may. Mm-hmm. da nga def yitte mu may la. boo ñu si làmb di yaafus tamit du la may dara. dëgg la ah? yàlla du bàyyi ko du may ko tëdd bàyyi ko taxaw. man wax jooju dama ko gëm. mooy sama mooy sama mooy sama professeur ah. dëgg bu wér la. li mu wax de. waaw maanaam daal maanaam sabab da ngay sabab lu ci daal. da ngay lu. boo dee boo fi mu waxee. Hmm. da ngay sabab lu mais jamono ji yaa téye làmb ji foofu de sa loxo. <laughs> non non am na yeneen gars yi fa ñoom Fils de nga ah, ñoom ah, ñaaba daw léegi Jackson gauche Jackson droite dafa mel ni tey suul nga ñoom guy geeg ñoom Balla ngay deux lag <laughs> deux léegi yaa téye làmb ji sa loxo foofu géej waaye. non géej waaye moom bëri na espoir. waaw mais yaay premier bi jamono jii de. non non ne ko premier man maa si ginnaaw gars yi rek. Hmm. moom laa maa si ginnaaw gars yi. Uh-huh. waaw mooy loolu noonu. Hmm, mooy loolu bëgg doon champion. Diam léegi adversaire ñan la. adversaire yi war a bëri yëpp am nañu combat bi. Ah, am nañu combat. waaw. ñëpp nekk fii di bëree. Mm-hmm. ay nekk. yow daal da nga bëgg yéeg beneen palier. ah nit ku nekk li ngay liggéey di ci bëgg ñaan yàlla ouvrier yi. Ah, avancement waaw boo avancé sa kase yokkul deful dara foofu fi nga doo jë kon jëru nga so nga sonn di hmm. parce tey jii dina ko yow sa làmb sa maanaam sa xel la moo ci ne ci làmb danaa la roi sarène waaw mais léegi boo bëriwul doxoo ci kaw foo jël roi sarène mënoo taxaw fi nga taxaw. waaw même cours. Mhm. ba di nga bàyyi làmb loolu mënul nekk. Mhm. nga ne sa adversaire yëpp am combat. ñu ma war a bëreel te xam ne man sama ñooy sama adversaire principal. Ah. ñëpp ñu ngi waxee ko. déedéet man d' accord ma. même man même ñuy commentaire d' accord ñu xaarim mbay mi d' accord waaw man d' accord ma. am na ñu wax sa diggante ak Diène Kairé. yëpp ay commentaire waaw yëpp ay làmb la. waaw ay làmb yu neex la. Mhm. maag Moussa Beye làmb di neex la. waaw. maa Aliou Seye bu taxawoon làmb am na combat na combat war nga ko ay yoon yoon xaar naa ko ba sonn comprendre nga. waaw ama neex waxtaan na ko xar naa ko sonn. waaw mais yooyu yëpp ah, da bu ko proposé léegi mu ne. lébu la ab lébu la. da ngay bëri sport la man tëngéej. waaw am naa fa mais ama neex moom xamante wu ma xamante na nii nag mais ku ci seqal relation. dëgg am na ñoo mm-hmm. mais man d' accord ma ne ñëpp am combat. am na ñu wax alburi. am na ñu wax soq. soq waaw am na ñuy wax Jackson. Valdo kii moom bind na ko lu mat 40 fois moom. xaari Mbay soq déglu soq du bëri ak yow te bu bëri kii. non bu doon na ma bu yàgg. Hmm. soq dañu woon xam nga soq moo doogoon benn hmm. bi ma daanee jat waaw mas dégg sox plateau bu toog laaj ma ko ko dégg. déedéet mu ko dégg ko gaaw a dégg. mais dafa war a ñëw faj mer. non non non mer faj mer. sox bu ko jëlee. mer boo koy fajee doo ko fajee foo xamante ni boo demee di nga am di nga faj mer bi. Tyson 2 nag. ah yow combat yi moom man bëgg naa combat yi gën a neex yow di yàlla. Tyson 2 saful. ne mooy combat yi. yaa a xam mais mais am na mais man mais gis naa fi combat bu saf mais Lamine xool na. ah TND champion nit ñi ko gënoon champion. waaw mais ñun lu ñu dal moo ko dal rek. a la mais daanaan la bërikat la amul ko dàq bëri. comme que nee na bañ. mais waa ji toog nag. kii nag joxe ah kii Jackson. falante leen wax ah combat xam nga nit ñëpp man ñu bañante parce que moom wax dëgg yàlla moom man ma ko bañ ci laamu. Ah. laamu boole na ñu war la bu la su manager proposé woon jam jël. ah man ko toog yor ma ko si man quoi. am mhm. man Abdou Lahat xam nga ak am ñoom ñoom ñoo may ñaan Jackson bëreel diw ma bëreel diw nii. Mhm. mais ci yàlla man ma ko bañ ci laamu wax dëgg yàlla. man defuma fa lu mu deful. dëgg la lamb boole non lu mu def moom dafa googu. waaw wax dëgg yàlla waaw. lu mu def moom dafa waaw na ne waaw. Uh-huh. kon man mën na ko si lamb ma ko moom kii bëri moom moom mu neex. waaw mm. d'accord doo ko yàggal kenn. Uh-huh. ah boo bëree moom ba pare. waaw soo daanee bu la daanee. Mm-hmm. di nga am loo jëlewaat ci moom. comprendre nga. maanaam mm-hmm. di am lu yokkaat ci yow. dëgg la di nga xam ne combat bi bëri tey la. Uh-huh. combat tactique la. Mm. mais laaj nga daan nga gañ nga bëgg nañ ko waaw allez-y. waaw loolu daf may neex ci champion ci mbër. Mm. gars yi gars yi ñi ngi seetaan ah. man buy bëri dama koy seetaan. ah buy bëri dama koy seetaan. billaay wallaay mais ni mu daanee sox mun na la ko daane. non lamb la xam nga lamb la. lamb moom lamb la. mais daal xam naa ne bu ñu bëri maa moom daal dina neex. na bëri tàkk-tàkk de. ma dana dana neex parce que dina dina bokk même ay bëri ay ay bagages. Forza d'accord nga si combat bi. waaw <laughs> combat bu neex da ngeen a bokkee bagage. waaw micro micro boo xam si am na ñu bëgg dégg. ma seen combat ñoom ñaar dina neex de. de ñaari de. Jam Téere Jackson Senior. ñaari ñaari technicien lañu. Jam Téere de bi ñu waxee loolu ba léegi nangu ta la xool nangu. nangu ta xool yow nangu de. ah léegi jàmm sa bët yi day xasan la. non non non kii day xasan say bët xool fii ci plateau bi. ah xoolal booy bi. ah sa ni ngeen di toog. waaw maa ngi mm-hmm. ma ne xam moom dañuy mënumaa bañ ci làmb. waaw ndax def fi lu ma deful. dëgg la dama ko nangu mën mënumaa bañ ci làmb la champion la. Mhm. comprendre nga te suñu combat ñu ñaar may la day neex ndax dana bokk ay bagages dana bokk ay bagages mooy dana bokk ay xeetu bëri. Mhm. ndax ku abine prix mu nga ñëw. waaw bu laajee xeex xeex bu laajee bëri nga bëri loolu day neex. day neex mhm. na moom moom moom suñu combat ñu ñaar day neex. day neex trop moom bu paree bu bëree. ñu ngi ko wóor ñu ne ko pare naa ko bëri loolu dara. Jackson yow yaa ngi sëgg rek ñeme woo xool bër gaynde gaynde kayaar bi man man nekku ah. lii combat la ah, man ko bañ si laam man mënuma bañ si laam ah. parce que def na fi loo xamante ne war ñaar war na may mbëri man tamit naa loolu noonu mm-hmm. mais ñu ñaar signature ñu bay xoolante ak dëgg waaw dëgg la waaw mais saxe la ngi si Forza grand Forza suma grand suma lépp mooy lépp la Forza mi ngi si laam moom man amuñu lien bañ bëri man ak moom am ñu lee maanaam ki bokkuñu écrit hmm. dëkkuñu defuñu dara ah, bu ñu làmb boole dañuy bëre dañuy di bëre loolu am na nekk ñaan na yàlla avancé ñoom moom ñu raw ah. sa sa ah. choix ndax ñoom la non su du ñoom sa choix du kii man ma wax rek man du ma choisir sama mm-hmm. ma wax jox leen ma diw ak nangam naa man mm-hmm. la man problème adversaire la am te adversaire man dama nekk xale boo xam ne moo moo ko Abdoulaye Ndiaye boo ko woon léegi mën a gisoon kii laa bëgg bëri ak kii laa bëgg mënoon te ni ko nekk am na kilifa. waaw. boo woon am am buun léegi am njaay am na ci son kii ak kii laa ko bëree moom. Hmm. moom ma xamal laa am njëkk sama loxo takk ma sama ngemb. Hmm. ma wàcc sama loxo njëkk sama ngemb. ñoo ngi si ay làmb yuy dox bëri dafa sotteegul. Hmm. man 25 decembre laa bëri ba léegi ñoo ngi may adversaire làmb noonu la da bëgg ñi ñii du la bëgg. comme daan nga. dëgg la. parfois nga jël làmb boo xam ne du la arrange sax mais xam nga yaa fi sa sax. mais est ce que xam nga ñëpp a bëgg bëri ak yow actuellement mbër yëpp a bëgg bëri ak yow. waaw loolu la loolu benn ay jamono la rek ay temps la rek parfois nga jéeg-jéeg ñëpp bëgg bëri yow parfois tamit kenn fël la comprendre nga. Mm-hmm. làmb lu may wax rek mbaxul xeeral rek. waaw njëkk sóor la mais tax ma njëkk ñor la. Mm-hmm. chaque jour ak booy bi génn. waaw na ñoo ñaan yàlla yàlla na continuer ba wala leneen. mais 28 avril bi su ma jógee moom moo waroon a bëri. maa waroon bëri production. oui. Mm-hmm. yaa Moussa Ndoye sax nekkul woon adversaire bi ñu bëggoon ñoom euh, su ma jumul Zarko la ñu bëggoon ñu proposé la nga ne doo ko jël parce que dafa nekk ah. ci combat digganteem ak ak ñaabu ndaw mm. te loolu day indi ay ay problème mm, waaw amoon nga yaakaar ne bu ci jógee di nga ak ak Zarko xam nga ñaabu ndaw ñaabu ndaw suñu frère la ñu bokk géey waaye moom mënu bëri ak Zarko combat desee une semaine ñaa ma yaag Zarko xam nga tam nekk nice mm-hmm. man chaque damay wane ngor ama wane lépp bëgg naa dem ba bàyyi làmb kenn du ma kenn du ma wax lu ñaaw mu ko jëfee comme daanaka. ñaaw na mënu bëre zaar ko même ba une semaine ñu jox ma avance ma ko jël du ma ko jël. dëgg mu pare wax nañ ko mais zaar bu nee na moom bëriwul man maa taxaw mu toog mu toog face to mu ni bëriwuma ak yow. lu tax waaw ah, loolu moom ngeen koy mm, mu ne bëriwul ak yow. waaw ni Kër Gaston mu toog mu toog mu ni bëriwuma ak yow. waaw loolu man manuma si dara. biir Kër Gaston. waaw moom deful fi lu ma deful.